fu ca daaka ronxañ ya feragul ñoo ngay jooy ba léegi ña faatu ca lakk ga fa amoon l'observateur moo ñu ko wax am na fukki néew ak juróom yu jébbal suñu borom démb bu amit yeneen juróom-ñetti néew yoo xam ne ña nga ca margo ba ñu war leen a identifier laata ñu leen di suul tii sa ki jooyoo génnagul daaka nii lañ ko l'observateur waxee journal bi boole kook defu reportage bu yaatu ci ñi nga xam ne dañoo bokkoon ca lakk ga te yàlla def ñu mucc ca ay témoignages yu daw millions yu ñu fa joxe ngir ñu taxaw ci ñaar fukki nit ak juróom-ñeent yu jëlee lakk-lakk ca lakk ga woon ca daaka bu Medina Gunaas la si ne kay nañu bilan nit ñi faatu ca lakk ga ma ngay gën di yokk léegi ñaar fukki nit ak ñett yu faatu bi moom gis ñaar fukki nit ak ñett yu faatu maanaam 23 ak 28 blessés Ba mi président comité d'organisation bu daaka bi xëy di ñaawlu ci xët mu njëkk journal bi li waroon a am te amul ca daaka ba ak it lu ñu ca ginnaawal Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ak sécurité publique nañu dinañu xool biir ak biti ba fu manqué manqué am ñu jéem ko saafara bu duutu amati li am mu di photo yi lakkuk daaka gu Medina Gounass gi ñuy wane ci internet bi loolee vox populi nañu ministre intérieur ñaawlu na ko ba fa kanamu yàlla anki la ak lakk la muy am ca daaka bari na lool li ko journal bi di càggante ca lakk ga woon ca daaka bu Medina Gounass anki dina kay nañu toll na fi mu nekk nii ci ñaar fukki nit ak ñeent te it bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu docteur Balde bilan bi mën naa gën a diis Abdoulaye Daouda Diallo nuñu ci xët bu njëkk Le Quotidien am ñax ak sawara mënuñoo doon ay dëkkandoo léegi am nañu takk bu wér ci li indi lakk ga woon ca daaka bu Medina Gounass du ko doon tux te du fil Gounass maanaam coupe-circuit ab gaz moo fa kalaate yéenekaay bi dañu am na juróomi yoo xam ne tegagum nañ leen loxo ngir enquête bi Cheikhouna Amadou Tidiane Ba mi xalifa bu Medina Gounass les éco nañu li am yëpp nee na teg nañu ko ci loxo yàlla sunu borom borom maa waxoon waxee di Abdoulaye Wade nee na na ko waa Sénégal waajal te xam ne mi ngi ñëw l'observateur tax nañu ci buntu ambassade bu Sénégal ba ca France fa la ko waxee ñu gis ko ci benn vidéo Abdoulaye Wade dugg ci biir bindu ci les électorales yi ba génn taxaw di wax li wax moo di dana ñibbi si Sénégal laata ñuy tàmbali campagne yu législative yi les éco nañu jàmm jeex na Wade ak waa këram jug nañu ngir tongal Macky Sall ak ñi mu àndal ci defante la gi Macky Sall di wax gaa yi fare ci Parti démocratique Sénégal ñoom ak ñoom rek Macky Sall gisagul ñu mu waxal enquête nañu Abdoulaye Wade yëgle na ne dafay dellu si Sénégal ngir wote député yi li waxul lu leer kay moo di ndax dafay doon tedd liste bu opposition bi am déet li mu wax ci mbir moomee mi ngi ci la tribune Abdoulaye Wade nee na jëlagul benn décision bu jëm ci loolee li xam daal moo di bu dee doon ko njariñ la ci réew mi gis lu war mu doon ko doomam ji ñëppi laaj fu mu faare di Karim Wade góor gi nee na Karim Wade dana ñu yegg ci wote législative yu 30 sulet yi avril 1987 ñaari at ci ren ca ba fa Abdou Diouf futtee ay policier ak léegi ñu tolloon ci junni policier ak juróomi téeméer Abdou Diouf woon leen ca yooyu la jamono le témoigne nañu ñoom policier yi xëy nañu di fàttaliku ci anam wu tiis moomi leen mbir commissaire Boubacar Sadio nañu ci yéenekaay bi président Macky Sall ak yërmandeem ak yëg-yëg mu am ci doomu aadama moo tax ñu am yaakaar ci ne bés ci bés ci danañu réhabilité ba ñu solaat tenue des gardes repos réewum Portugal seen jiit li mu di seen président li nekk ci réewum Sénégal doon fa amal ab ngan ngan ngaak lenn mu jur mi ngi ci Le Soleil jëflante Sénégal ak Portugal jur jur na ab usine montage ambulance bu ñuy samp ca jam ñaajo ak ñaari téeméeri emploi ak juróom fukk yu mu nar a jural doomi réew mi mi yépp lu ñu bëggoon a xam sunu làmb wax na leen ko bi leen yéene kay bi Luc Nicolaï mi tëgg combat Gris Bordeaux le tigre de Fass ak Balla Gaye 2 Triple S doomi Double S ñaata la fay mbër yi sunu làmb nañu jàpp leen Balla Gaye 2 soixante-dix millions la ñu ko fay Gris Bordeaux ñu fay ko soixante millions